ndaje mi ñu ko amalee ci diwaanu Poroxaan mu nekk ndaje mu mujj ak chef de service yi laatay màggalug soxna jaara gi ki nga xam ne nag mooy gouverneur bu kaw Kaolack ànd ko président comité d'organisation bu màggalug Poroxaan ñu xoolaat mboolem secteur yi fenn fu nekk fan lañ ci toll. wàllum sécurité bi courant bi ak ndox mi paj gi ak service di d'hygiène mboolem ponk yooyu yëpp càmbar nañ ko. Euh, ci wàllu sécurité euh, dégg ngeen li gendarmerie ak police wax. Euh, complété par les sapeurs pompiers Lepp lu nga xamni élément yu ñu wara indi la pour daf jalonnement mu joggé Kaolack ba ak si Poroxaan Inshallah, gendarmerie dina ko def site yi nga xamni retenir nañ ko pour ñu sécuriser ko bu soba yalla dinañ ko sécuriser de même que mbedd yi nga xamni ne ñoo nekk Poroxaan ci biir loolu am nañ ay éléments yu nga xamni ay jigen dañuy doon bu soba yalla ñom ñoy assurer sécurité ci daara Mam Diara ndax daara boobu dafa am particularité Euh, li ci des mooy aux frontière également ak même ci biir dëkk bi am nañ ci ay agents yu nga xam ni ñoom xëy na beneen xeetu saytu la ñuy def lu ci mel ne brigade des stupéfiants lu ci mel ne également contrôle au niveau des frontières et autres ñooñu ñëpp dañu leen mobiliser pour que màggal gi ku fiy ñëw nga gis ni sécurité am na fi. problème mu ndox bi nag moom dafa nekk cas. ndax nga dégg màggal bu ñëw ba jeex ci waxuñu problème ndox lu raar la mais inshallah cette année ci vraiment waxtaan nañ ci ak hydraulique ak effort surtout pour que ñu teel a taxaw camion yi teel a ñëw ñu duy bassin yi ci teel duy euh, bâche à eau yi bu ko defee su màggal gi di exi li fi des ci camion ñoom dañuy def rek ay ay rotation de routine maanaam fii manqué na ndox ñu daw wala fii mi nga bëgg a manqué yi daw et cetera loolu nag dañ ci insister daf ko recommandation forte pour que directeur général bu OFOR xam ni euh, ndox rek moo mën a yàq suñu liggéey manqué ndox moo tax bu soobee yàlla ren ji dinañ ci jël ay motuwaay yu am solo. kilifa yi nag njort nañ ne màggal gi dana nekk màggal goo xam ne taalibe yi danañ takku lool ci poroxaan loolee moom moo tax président comité d'organisation bu màggal gi di Serigne Bassirou Mbacké poroxaan bég na ci matuwaay yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko. xanaa xamal la ne rek li dalal sunu xel ñaari yëf la benn bi moo di moom ni nga xam ne noonu la eh, jiitee liggéeyu màggal gi bañ ko ko yëgalee ba léegi mook eh, autorité régionale yi ak ci ci département bi ak sous préfecture bi nga xam ne eh, bu njëkk daan nañ ko waajal ñeenti weer réunion yi waroon def ñaari weer lañ ko daan def ñoom def nañ ko ci fukki fan ak juróom foofu la sun xel tàmbalee dale ñaareel ba réunion yi ñu def yépp ci jamm lañ ko def ak déggo nga xamné chef de service yépp ku ci né wane nga sa yéene wala sa bëgg-bëgg xam bisu mam jaara bisu Sénégal yëpp la. ndaje mi nag muju la tay magal ak soxna jaara gi nga mi ngi wara am alhamis bi di ñew di ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru février. Poroxaan xaan nara nek célébé yoon talibé mouride yi. li tax na mun Mountakha Mbacké Bachir ñaanalaat na chef de service yi kenn ko ci nekk matuwaay yi nga jël ci màggal gi nga am ci ndàmm nee na liggéey bi de liggéey bu rëy nañ ko liggéey na mu na liggéey ngeen ko na gën a rafete kon nee na tubaarkàlla moo ngi ñaan suñu borom fay. bàyyi bàyyi leen fii bañ bés ba ñoom ñëpp seen yéen a àgg. nee na yal leen fi yàlla leen yàlla wéral bàyyi leen fi ba yéen ñëpp kenn ku ne seen nit a egg. seen seen yéene. seen yéene egg. na ngeen ko bëggee. te na ngeen ko bëggee.